Ah, dama géntoon mhm. ah, benn waa ji di ma dàq mhm. mu dàq ma dàq ma ba ma dugg ci biir néeg mhm. après waa ji mel ni ku léegi nag après ma génn gis ay nit ñi def ay ñi def ran léegi nag waa ma gis ñuy mel ni yore ñu yore ay hmm. laaf ay laaf. léegi nag léegi nag ma gis leen ñuy naw ci kaw asamaan bi. Hmm. léegi nag ñoom naw man munu munuma naw ma tax. Hmm. léegi nag ma gis benn waji ji dama kaa xam. léegi nag muy reetaan léegi nag. mu jël ay paax a jam ko sama ginnaaw bi. Mhm. léegi nag ay yeneen nit ñu dugg ci benn kaal. Mhm. léegi nag ñi ñi di coow wax di wax léegi nag après. waaw shukur shukran wa ala kulli xaal dina ci ñëw léegi incha allah gën ñu ko àggaleel bu mu gën a leer ñu leeralal ko laaj boobu. a ah, mbokk mi neen day gént mu day farataal di eh, def ñaan ci benn bayit buñ ko mës a jox nee mbokkam taalibe moo ko ko jox mu di ko def ñaanukaay neen day gént daal di ci gis ay mbir yu bari te xamul ndax noonu lam déet muy laaj wax na baytu bi nag nee mu bëgg ñu indi ko ci ay leeral ndax li mu ciy gént saa ko ñaane wala mu liggéey ko dafay dafa koy jaaxal lool ndax gént yi day bari te du xam fu muy teg tànkam baytu bi mooy biyaahin wa yoohin wa yaa yoohin wa yaa xayra rabbin wa yaa manil arzaq min juudihi nawat nee na moom lay farataal di ñaan saa yuy tëdd baytu la boo xam ne bii am na solo waaye dinañ ci ñëw léegi incha allah ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa wa rahmatullah. sëñ la ëpp bu baax. taarikal alhamdulilah man dama bëggoon laaj ñaari gënt yi mm-hmm. benn bi mm-hmm. dama gëntoon daal dañu daal maanaam àdduna bi daal war nañ koo ñaanal mbooloo mm-hmm. mu bëri daal wër ma ma nekk ci war a diriger maanaam pour ñu tub maanaam loolu noonu waaye mbooloo mi daal bëri gi mu bëri bu ëpp na lool lii moo nekkoon gënt ga waaye ñu ñaan àdduna bi ndax yàlla def jàmm loolu daal moo nekkoon gënt gi njëkk gi li ci tegu sama papa dafa làqu mhm. ma gëntoon mu toog ci blal gi ma ñaanal ma toog ci suuf kan moo kan nga gisoon sama papa sama papa ana moom moom dafa làqu mhm. ndax mu ñaanal ma toog ci suuf moom mu toog ci kaw naan ma daal jafe-jafe xam naa loolu waaye daal bu soobee yàlla dina jeex mhm. waaw mu ñël waaye fi mu toll nii maanaam amul problème lépp jag na waaye waaye daal rawaan yi ñoo ñoo ci def waaye yàlla mu wax ci gënt gi ngari dal mo nekkon ñaar digal sama bu kontal kum ci dimbalé jere jere jef dina ci ñew légui baax jere ci baax ma bismillah inshallah شكرا على كل حال سناتي ببيان هؤلاء الاحلام ان شاء الله ولا بلا نيو ني ليرال مبوك مي واخون دا فام بيت بوم كو جوخ مودي سي نيان موي بياهين ويو يا يو يا خير رب ويا من الارزاق من جوده نوات ne daal saa gént gént yu ko xaw a yéem lool muy laaj ndax daf ko war a bàyyi wala daf ko war a continuer wala nan la ci war a def euh, baytu la boo xam ne bi mi ñu ngi nekk ci qismil barhut euh, bayt la ci bayti barhut yi muy badaatu bi bismillahi ruuxi bi ihtadat ila kasfi asraarihi bi baatini intawat euh, barhut di ko liggéey dafa am aqsaam maanaam dafay am ay shurut yuñ lay tëralal nga xam noo koy tërale baytale nag bu baax ci ñu ko xam waaye nag yenn adat yu bari yi mag yi dafa ko yittewoo soxla nañu daal boo koy ñaan mu nekk nisfu layli guddi xaaju guddi benn sopp nañ ci it nga sell boo koy ñaan ñaar ñetteel bi it bërëb bi nga koy ñaanee na sell ñett ñeenteel ba it sopp nañu boo koy def lu mu néew néew néew bul weesu 777 ci baytu bi 777 daal moo ci gën ci baytu boobu muy bi yaahin wa yuuhin wa yaa yuux yaa xayra rabbin wa yaa manil arzaqu min joodihi namat soo tëjee soo paree nag danga nga koy tëjee alam nashrah mooy tëjukaayam muy lu am solo lool nañ ci bàyyi xel euh, baytu la boo xam ne min abyaati qismil barhuutiyati nañ ci bàyyi xel Euh, mbokk mi nee na moom it dafay gént gént gu ko yéem nee dafa gént ay nit ñoo xam ne ñii dafa mel ni daf leen gis ñi daw te ay mbooloo lañu nee na gis na ci ñoo xam ne ñi daal dafa mel ni dañu am ay laaf di naaw moom sax dem na ba bëgg te mënul naaw mbooloo bu ñu amee ay laaf di naaw nga gis leen dangay ngay gis mbooloo moo xam ne mii dañuy bari fitna ci seen biir dañuy bari ñàkk déggoo jubóo di ko xat-xat day bari seen biir wa xataa mën na jur fitna bu bari muy mbooloo muy naaw bokkul ak benn nit buy naaw kilaahuma laysa ala xaddi sawaay fil xulm su dee benn nit buy naaw yor yorul ay laaf tiim kër yi di naaw rek yadullu ala umrin tawilin fi xayaati gudd gi fan la koy jural lu baax la Euh, nee na gis na it ay nit ñuy reetaan reetaani guddi a daxku fi lxulmi yadullu ala xusnin amiqin wa diqin shadid reetaani guddi naqar la njàqare la du lu gën soo géntee nag nit di la jàmpaaka ci ginnaaw da ngay jëflanteeg nit ca la nga cay am ca résultat du la neex mooy nit ku ñuy jam ci ginnaaw boo ko géntee daal jàppal ne di nga jëflante ak nit te lang cay am ci résultat ba résultat jëflante ba du la neex du la gënal euh, beneen bi it mbokk mi nee na dafay laaj nee na dafa gis ay nit yuy ñaan wala di ko ñaanloo ci àdduna bi ñaan goo xam ne gii dafay mel ni ñaan bu ñu war a def la pour àdduna bi jafe-jafe yi ci war a am tey waa ñëw ñu war ko def Euh, gént daal ñu ngi lay ñaanloo wala ngay ñaan lu am solo la allahu alam nag lan ngay ñaan ak ñaan gi ñaanuk lu mu doon jar naa bàyyi xel waaye ñaan daal min umuri dunyawiyat yi xéewal la ñaan li xifzil xayaat euh, am na solo yiw la ñaan yàlla aar sam réew ci gént yiw la benn bu ci nekk xéewal la lu baax la euh, ñaare bi dafa gént waaye juróomu góor génn àdduna di ko feeñu naan ko di ko mel ni ku koy dalal xelam wala mu koy ñaanal naan ko dina baax li ci kanam bu ñëwee dina am solo man raa walidahu fi lxulmi raxala ila jiwaari rabbihi mundu qadimin zaman fa raahu fi lxulmi fa dalika yadullu ala anna fi daaxili l usra mushkila aw masaakil mutaadida gis nga nit su génte waajuram mu feeñu ko ci gént na jàpp ni biir njaboot gi am na xat-xat am na tolof-tolof nañu waxtaan ci seen biir wala mu am su fi ma baynahum ñàkk a déggoo ci seen biir wala lam lam yakunu yattabiuuna wasaaya abaihim wa ajdadihim nekk ñu woon di sàmm kóllëre yi fi seen waajur bàyyi woon ak seeni maam mu jar a bàyyi xel lool nit bu génne àdduna am na yu muy bàyyi ginnaaw yu jar a bàyyi xel miraas mi ci la bokk ñu war ko baye xel su sañon jabatam and nek ben muy la am solo su sañon nit xalé yi mu fi baye ñëpp manko nek ben bu tasaro amé ak ñak nak bari ana euh, bari na lool lu muy indi doom di gis way juram ci yenn xal yi muy la am solo ñettel ba it na ko sarax mu nek sarax bu am solo mu yene ko way juram moom nga xamni gis na ko ci وهو رحل إلى جوار ربه منذ قديم الزمان مونيانن كو سي يالا موي لام سولو اي موكي كوم كو وقتو وي داف نيو خاوا داب داني جيغلو لول لول لول دي نيان يالا في كل يوم الجمعه ان شاء الله اجما جو نيك نيان نيان يالا تيو في اك يين سي سين ايميسيون تفسير الاحلام وعلى كل حال وقتو مو ني خاوا خات مو خاوا خات داب ني لول ñu ngi koy jégalu ba ajuma bii di ñëw incha allah yàlla nañ ci yàlla boobu jàmm. ñu ziar mbokk yi nga xam dañuy bàyyi xel ci jamono bi waxtu wu nekk ñu ngi ziar Matiba Souleymane Khadijata Samb Soxna Ba Malick Ba fàttewuñu kenn Mouhamadou Mbaye Midine Mbaye Ndiku Fall Adama Ndiaye Assou Yoro fàttewuñu leen. di ziare wóoru si ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara Ahmad Tidiane Niang ñu ngi koy ziara docteur Pouy Ami Touré di ziara ba tey Elisabeth Sagna ci Paris ñoom ñëpp dañuy déglu Mansour Sarr Fat Seck ak yaayam Sali Mam Lisoun gare de l'Est Paris Gogo Cissé fàttewuñu leen Rose ci France Marguerite Camara Lamine Sall fàttewuñu kenn Omar Diène ñu ngi koy ziar moom it ko bëgg émission bi la Aboubacrine Ba gendarme retraité moom it ñu ngi koy ziar bu baax fàttewuñu mu Ndiaye Cissé ñu ngi koy ziar fàttewuñu kenn Abdourahmane Mbacké Massamba Sow ci Louga ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di leen wax ne incha allah ñaan nañ yàlla ajuma ju nekk ñu tasawaat fi ci waxtu wi yàlla nañu yàlla defal jàmm ak xéewal bi jaahi sayyidil wujud اللهم رب لا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك يا الله وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك يا الله ولا ينتقص يا الله ما أردت أن يزداد ولا يزداد يا الله ما أردت أن ينتقص لا أحد يا إلهي شهدك حين فطرت الخلق يا إلهي ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس يا إلهي كلت الألسن عن تفسير صفتك يا إلهي وانحسرت العقول عن كنه معرفتك يا إلهي فكيف فكيف يوسف كنه صفتك يا رب يا من قال لموسى اضرب بعثاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتود العظيم صل وسلم